jërë ngeen jëf euh, mbokki ànd ak ñun dañu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci weeru mag bii di weeru koor di leen baalu àq euh, di ñaanal suñu kilifa di nekk suñu kilifa day di ñaan réew di Sénégal yàlla suñu borom dolli jàmm euh, di ñaanal ñi nga xam ne caabi dina féete ginnaaw yàlla may leen liberté ba ñu ñëwaat seen njaboot di ñaanal woy dawlu yàlla yërëm leen. ah tey nag ñu seet si koo xamante ni gars yi namoon nañ ko ci people 221 mu di sunu xarit suñu partenaire Cheikh Ahmed Cissé borom àndala Ahmed maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi fay ñi nga xam ne dañoo tàmmu ak tànn people 221 ngir itte bu kawe bi ñuy def ci seen liggéey waaye xibaar yi nga xam ne ñu ngi koy jox mu ànd ak entertainment askan wi euh, di leen ñaanal yàlla yàlla musal leen te aral leen boppam. amiin di am kontante teew fii beneen yoon di jàkkaarloo ak yow di la wax ne ñu ngi lay ndokkale ci weeru koor wi. di ñaan ci barke Seydina Issa Ruhullahi yal na yàlla defar àdduna defar Sénégal. amiin. Ahmed Ahmed temps dafa mel na nga engagé wu ci Laayeen de lu xew da ngaa démissionné parce que maa la gis ngay waate fan yii ay Seydina Issa Seydina Limaamu. waaw moom Seydina Limaamu ku lekk ba suur géex bu la neexee weddi ko waaye ku dem ba ñàkk pexe ba xamoo foo jëm di nga xam ne moo gën ci yow. xanaa xamoo bi Cheikh Sarr xate woon ci ndakaaru amul fenn fu mu dem Seydina Limaam moo ko fat mhm. muy fanaan ci rawdu ba taal na ko ba réew mi xam ko mhm. xanaa xamoo bi ma duggee ci kaso ga wala bu ne géntuma la ba mu des Seydina Limaamu te ba ma fa jugee réew mi xam ne ne kii am na lu ànd ak moom lu uteeg leneen mhm. ndax koo ci gis daf la naan dama ko bañoon ba bëgg ko neexul ma woon waaye neex na ma moom rek lay topp loolu nag du liggéeyu ndey du am pexe du xel mu du mën a wax mbiram sunu borom la yàlla ko def waaye ci Seydina Limaamu la jaar. te man gëw ma ne yàlla ñàkk na bopp ñàkk fayda nim mu fonkee yonantu doomi kumandoo bi juddoo senegal gii di nit ku ñuul ne man la woon ne géej gi puusal tëdd fa géej gi attaqué wu ko ak xar baax yëpp yàlla toog noppi man gëw ma loolu. Mhm. parce que yàlla xam naa ne buur la waaye buur bu mat la buur bu màgg la buur bu teey la ko am fayda la. am na solo te foyewut yonantu wa sallam mhm. te Seydina Limam bi mu wootee ba tey gisuñ lu ko weddi. Mhm. moo tax ma ne gaa yi weddi ko wóoru te ñoo jàpp rek ba gis keneen comme gisaguñ keneen daal man maa ngi ci moom. <laughs> am na solo mais Ahmed namoon nañ la nag namoon nañ la kër gi ak sunu téléspectateur aussi tamit namoon nañ la. waaw soo gisee ñu namoon ma rek dañu daf leen leer ne kii di wax moom nit ku dëggu la te lépp lu mu wax gëm na ko te Sénégalais dañu toll foo xam ne dañuy bëgg nit koo xam ne lu mu wax gëm na ko. lépp lu mu wax ci moom la nekk loolu dafa leen di neex. loolu rek a tax ñu nam ma waaye ma raw leen. am na solo. Euh, fi may njëkkee waxtaan bi Ameth ñu seetlu ci weeru koor bi euh, danga nga changer communication euh, par rapport ak weeru koor bi kàddu yu xaw a yi sénégalais yi jàpp ni olof yi dëgër yi boog sax wax par rapport ak weeru koor gi nga xamante ni da war maal kàddu yi la lan moo waral loolu en fait. man moom yokk ma wàññiwu ma lépp lu may wax rek. lépp lam laaj noonu laa koy waxee te su ma nekkee ci géewu xam-xam di jàngale lépp lu koy leeral rek loolu lay def. dafa am benn góor goo xam ne bi ma woowee mooy comme ni ma doon wax rek ustaas yi bu ñuy jënd dañ lay téye dix minutes ngir wax la ne àndalaa buri laa bëgg. waaye bu fekkee régo leen bëgg daf leen di jël ñetti fan bis bu njëkk den lay woo gërëm la ne maa ngi sa fasante yoo kóllëre su bëgg ñu ñëwaat den la doon ziare gannaaw soog su ñëwee doroo xam nga loolu dafa gudd. Mm-hmm. waaye ustaas bi ñoom moom daal yooyu noonu nga xam ne daal danga wax a wax ba mais man xam naa li mu wax waaye leerul man it ma jox ko garab gi ne ko moom daal boo ko kiiyee foofu daal nga kii ko nii mu toog ba bu yàgg guddi mu woowaat ma waa sëñ bi mbir mi laa bëgg a jëfandikoo ma ne ko waxoon naa la ko de boo ko kiiyee daal incha allah yàlla mën na see def tawfiq mhm. mais bi mu ñàkkee pexe daf ne ma nu ma koy defee dama koy lekk wala dama koy d ma ne ko ah oustaz oddal kàddu yi ma déet <laughs> gaa yi la naan woddal kàddu yi am na noo koy woddee ci certaines situation ñoom ñooy sàkk mu leer. Mhm. ku ci mel ni maam Makhtar Gueye bi mu ootee presse bi di ñaawlu suma wax. daf ne Cheikh Ahmed Cissé dafay toog doo wax yu yiwul dafay toog naan taat maa ngi jéggalu mhm. mais dafa bëggoon askan wi xam li may wax lan la. ñoom Jamra jël neen suma vidéo bi ñuy ñaawlu man posté ko seen YouTube. wax ju bon joo porté plainte nit da nga ko war a nëbb waaye wax ju bon jooju nga jël ko posté ko yow. yéen a war a yem àtte wala kooku sax moo la gën ndax nit mën naa juum waaye mi koy jubbanti waroo juum moo tax anglais ñu ne two wrongs cannot make right ñaari njuum te doo ci gis dëgg. donc man wax naa lu ñaaw ñu porté ma plainte ngir li may wax dafa ñaaw ñoom ñu posté ko seen YouTube. bi ma jàpp waroon naa wax ci ñoom. moral bi ma jàpp waroon naa wax ci ñoom. sénégalais yi ŋàññi lii waroon nañoo bonal bële waaye nag malheureusement réew mi nii la tëddee. xool wax jàkkaarloo conséquences yi noppi nekk complice bokk ci teranga yi. Mhm. loolooy Sénégal. Mhm. xool wax jàkkaarloo conséquences mhm. noppi nekk complice ñam ci teranga yi. am na solo mais Ahmed est-ce que mën naa xam naka ngay dundee euh, ci weeru koor gi sa programme de vie ci weeru koor gi. man c'est simple la neuf heures laay tëdd seize heures laay yeewu yeewoo. PlayStation ndogu jot ma ndogu. doo julli su ma paree man yàlla pré en gros laa koy jox ci weeru koor bi du ma ko détaillé dama sonn. mais dinaa ko ko jox nag pré en gros dajaleel ko rek na ko suma borom bu mat bu màgg yu maa ngi. Mhm. su jotal ko ba mu bég man neexal ko romb ko fa dem. Mhm. xam nga yàlla buur bu màgg la dafa bëgg ko ko màggal. pré en gros laa koy jox du ma détaillé de. Mhm. parce xam nga ku tëdd di nelaw ba 16 nga yeewu. balaa sa yaram bi di fecceeku di bàyyandeku day fekk julli tàkkusaan paase na. Mhm. soo fa jógee yaa ngi xiif munoo nekk di rukkoo ko sujjóot su ma lekkee ba suur munumaa julli damay bàyyi bam mu dal boori trois heures deux heures. Mhm. ma bécc ko ko. Mhm. jox ko juróom yëpp ñeent yëpp kon prix en su boobaa julli naa suba ci waxtu wa. géeye paasewul tusubaar ak tàkkusaan ak timis laay fay te tusubaar daf ma fekkoon may nelaw. ndax man julli utuma ci tiyaabo. man ngërmande borom bi laa ciy wut. su doon tiyaabo laa ci bugg dama koy wut mais man bugguma tiyaabo ci julli. wutuma ci safara nii àjjana man ngërmande borom bi ak sant ko rek laa ci bëgg. Mhm. Mhm. noonu laay dundee suma koor terewul maa wax lu ma bëgg a wax nag terewul maa def dara. d' accord mais ci julli googu noonu en tant que comme yow ngay borom xam-xam chaque jour ñëpp nawloo si tamit ci sa xam-xam ak fi nga jaar sa parcours ci wàllu njàng te borom xam-xam yi ñu ni jullikat ci waxtu wu daa gën yow nga ni doo julli ci waxtu wa parce que daa ngi nelaw nga ko teg ci xam-xam ak ñi nga xam dañu lay suivre nelaw nelaw la kuy nelaw kay mën ngaa ñàkk julli parce que yaa ngi nelaw surtout. Mhm. biñ mënta nangu kay mooy tàkkusaan bi fekk ma yeewu ak timis mhm. ñaar yi leen ma mënta nangul waaye lekk dafa gën julli lekk mhm. lekk moo gën julli lekk bu set moo gën jumaa ju set ah, lekk ko am wér gu yaram moo gën jumaa ju set ak jumaa ju rafet donc damay lekk euh, du lay nag waaye man loolu daal lay def man suma paree boole ko purée en gros jox ko suma borom. Mhm. jàll ci leneen naa. Mhm. noonu laay wooree ñàkk julli waxtu ban effet lay def ci wàllu diggante jaam sunu borom. Euh, ci jaam bi bari na luñ ci wax de waaye suma diggante suma borom moom du problème. man waaye ci jaam bi moom ñàkk ko dafa gën ndax julli dafa am waxtu waaw waaye man Cheikh Ahmad ak suma borom moom julleeg ñàkk julli yokku ci wàññiwu ci dara ndax bokk na ci yab yàlla mooy di julli yaakaar ne sa julli gi mooy tax nga jubóog sa borom yaakaar ne sa julli googu mooy tax demoo àjjana mm-hmm. déedéet mbir yi coobare borom bi la da ngay julli parce que daf la war ngir nga sant yàlla waaye am na ñoo xam ne bu ñuy jaamu yàlla jaamoo yàlla sax dañuy foog ne loolu erreur la buñ jullee dañuy jàpp ne léegi ku julli wut ñoo la raw ci yàlla loolu erreur la ibnu ataayilaayi mu ne jaamu yàlla yaakaar jaamu yàlla xeeb yàlla la da ngay jaamu yàlla yaakaar ko déedéet bëggeel jaamu gi ngir sa borom la waaye yaakaaral yàlla rek bul yaakaar jaamu ci yaakaar màkk du yaakaar yàlla yaakaar alquran du yaakaar yàlla yaakaar yu yonent bi du yaakaar yàlla. yaakaar sa jaamu yàlla du yaakaar yàlla. waaw. am na solo euh, ba tey damay des ci li nga xamante ni mooy koor gi fan yee passé ñu euh, gis sa benn sortie ngay du ma ne classe sax ngay jàngal que ni yenn ustaas yi dañoo war a xoolaat seen toogaay dañoo war a xoolaat seen taxawaay parce que diine ji léegi dafa mel ni sàmba ma yaan lañ ko def euh, mën nga ma ñëwaatal ci loolu. waa xam nga bu fekkoon jàng rek mooy taxa doon ustaas man maay ustaas bu mag bi ci réew mi ndax man dama bokkut ak ñoom alwa bokkuma ak ñoom pédagogie bokkuma ak ñoom xel bokkuma ak ñoom may bokkuma ak ñoom xam-xam mm-hmm. waaye jàng rek doyut pour nga doon ustaas mm-hmm. ustaas danga nga war a yaatu dënn mun a muñ mun a jàngale te doo ci yokk doo ci wàññi xam yàlla xàmmee ko nangoo muñ loru jaam ñi xam-xam gën la lu ne. ustaas dafay fegu ustaas dafay sàmm ustaas dafay dëddu àdduna lii laa gëm bi ma mënutee lii ngir dama bëgg àdduna moo tax ma summeeku ci mbubbum ustaas parce que ustaas responsabilité la mu ngi mel ni honorable député député buy saw ci mbedd mënoo ko nangu waaw mu ngi mel ni honorable ministre buy dem tëddee jigéen ci auberge mënoo ko nangu kon ustaas dafa am luñ la may mu warta may ndax yow yaa nangoo tudd ustaas di ko doxee ci biir askan kon yow ambassadeur u lislaam nga parfo nag la ca butéel ba rek la war a xeeñ ustaas yi nii ñuy waxee ci yonent bi baaxut nii ñuy waxee ci diine baaxut ni ñuy waxee ci mag ñi baaxut moo tax ustaas yi luñ bari bari ñaata nit la ñoo dimbandikoo doon def lu bon bàyyi ko juba di juboon xamuñ woon xam ngir ne ustaas diw lay déglu. Mhm. yaa ngi ko doon dégg ci Ahmed Daat yaa ko doon dégg ci Adi Niass yaa ko doon dégg ci Moustapha Guèye yaa ko doon dégg ci Makhtar sekk mu mag ma waxuma Mboro waxuma oustaz Seck Makhtar Seck laa wax. yaa ngi ko doon dégg ci euh, sëñ Sam Mbaye ñooñu ñoo ñoo ragal yàlla jaamu yàlla bu buñ lay wax den lay wax te yàlla tax mais pas seetaan ma xam nga oustaz bu def programme ba pare di yónnee lien bi naan commentairel ma laygal ma kooku du oustaz. soo biis la nekk ci turi diine faaw ñu xàmmee mbir yi. Mm-hmm. loolu daf ma naqari daf ma métti te warul. moo tax nit ñi dañ leen di déglu au lieu que ñu jubbante ko jëm ci seen borom waaye dañ leen di déglu xool lu ustaas wax nga posté ko estati ngir gaaruwaale sa morom. parce que foofu noonu dafa am solo boo xoolee yaa ngi tudd léegi ustaas boo xam ne ku jar a bàyyi xel la mu di Adi tey boo xoolee Adi Niass ci wàllu ci wàllu réseaux sociaux yi néew na ci loolu looy dox ba dégg ñuy wax ay waxam par rapport ak yeneen ustaas yi nga xamante ni dañuy toog li ñuy wax mënoo cee jàngee lu bari. dafa nekk ci njub rek Sénégal ku fi nekk ci njub doo siw doo am xorom doo am bayre mm-hmm. ndax ñi jub bariwuñ mm-hmm. waaw waaja bi mu toogee ak sëriñ bi na ko réew mi de maa koy gañe mu ne ko lu tax mu ne ñu baax ñi man leen àndal mu ne ko doo gañe ndax ñi baax ci réew mi bëriwuñ te loolu jamono Senghor la woon ci élection jamono Abdou Diouf jamono lay Wade jamono Macky sàll ba jamono Ousmane Sonko kon da ngay gis ne euh, ñi jub ñi baax bariwuñ kon fii ku fi jub jubal te baax duñ la xam duñ la bëgg duñ la topp loolooy Sénégal quand même. Mm-hmm. Adi mag ñi den ko defar mu jàng xam. Mm-hmm. te jëfee lim jàng tayem ci. Mm-hmm. boraanduwul nguur. fomp oto kenn. marul taatu kenn lim jàng rek ci la yem. Ah, man duma deglu déglu Adi ndax mënul ma yokk dara man man. waaye nag nit ku baax la nit ku am xam-xam la. man Adi Niass mënul maa yokk dara dara dara dara dara. wallaahi amul dara lu ma mun a yokk waaye nag nit ki ñàkk laa mun a yokk du tere nga reconnaître mbaaxam ak xam-xamam ak njubam c'est ça quoi mais ñeneen ñi ay soo maan leen soo biis la ñu nekk ci turi diine d'accord foofu noonu dinaa fa ñëw parce que boo xoolee léegi yenn usaas yi da ngay gis sax tiktok bi nga gis par exemple awaak ñaareel wala tey kuy gaaruwaale nit day jël wax usaas ba salange ko en tant que bu demee ba toll foofu ay waxam ñu walaay teesante est ce que loolu mooy rôle oustaz ci société bi. dama lay wax benn jikko boo mënul xam. Mm-hmm. oustaz bu nekk ni mel lay waaree. Mm-hmm. oustaz bi xolom xat mu mën a defante. waaree defante rek lay wax parce que looloo nekk ci moom. Mm-hmm. Cheikh Ahmed bu bëgg jigéen mbiri jigéen rek lay wax parce que loolu la bëgg. bàyyil xel bu baax. nit ñi nañuy waxee rek loolu leen gëm. donc tey ustaas bi foo waxi foo lay wax ustaas bi doon naa fekk waxi naa fekk ki dëggu wax bu dëggu rek lay wax nit ku nekk nanga nga mel rek ngay waxee ustaas boo fi gis ñuy gaaru waale di la estati rek billahi lazi laa illa huwa xol ba dafa xat dafa mën a defante te dafa naqari der mhm. nit ki ni nga mel soo yeggee ci yàlla jikko boobu la la yàlla di ràng boo dee ko kat da ngay yegg ci yàlla mu ràngal la maqaama jabbaaru wala mu bu dee kuñ yéwén yàlla ràngal la maqaama latifu ninga nga mel rek boo demee ci yàlla noon noonu la la yàlla di solalee. Mm-hmm. oustaz boo fi gis ku dagg sant jël audioom jël vidéoom teg ko billaahi dagg sant kat la ndax dafa xat. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu maa la ko jàngale. bàyyil xel nit ñi bu baax. nañ mel rek la ñuy waxee ku ci doon na fekk sa waxinu naa fekk lay wax. mel ni ku baax mel ni kuy jubal nit ñi mel ni moo gën te boo boo jonjoog moom rek xeeb ko ngir jikko ju suufee. Hmm, wax dafa garaaw man Sénégal ko ubbi sa gémmiñ ma xam foo toll. boo bindee nag pare na la moom <laughs> boo bindee moom jeexal na la. moo tax man ci commentaire yi lay tànnee xarit. ci suma commentaire yi fa lay kan lay xaritoo. ndax boo bindee rek ma xam la. bind dafa foor moo tax yàlla bind alquran. moo tax yonent bi munul bind bindul. waaye yàlla dafa bind. Mhm. Mhm, lu garaaw laa wax. Mhm. yàlla dafa bind te yonentu bindul. man boo bindee rek jeexal naa la xam naa yaay kan boo waxee rek mun naa laa natt quatre-vingt-dix pour cent ne nii nga mel. Mhm. surtout nag téléphone boo ne allo ma ne allo rek xam naa la. Mhm. am na solo ba tey damay def ci li nga xam ne mooy koor gi ñu gis ni euh, weeru koor gi plateau yi nga xam ne moo ci ëpp moo ci ëpp valeur nit ñi di ko nit ñi di ko seetaan néew loo fay gis tey borom xam-xam wala benn sëriñu daara bu nekk dëkk ba jàngale euh, ba yor ay ay ay xale yoo xam ne dañuy toog di fer it néew na loo leen gis ci plateau yooyu noonu ci weeru koor gi. non mais waruñ faa dem du seen place plateau yi c'est purement commerçant gis nga nit ñu foog ñu yeewu. Mhm. plateau yi musul nekk pour diine. Mhm. c'est à cent pour cent commercial la. da ngay wax ak sponsor yi. jéem a fexe askan wi. Mhm. nan nga leen mën a orienter téye leen ci weeru koor bañ déglu lii rek la mais du pour Maodo du pour Sëñ Touba du pour ñooñu kenn du pour Baye Niass lii moom na leer. mais nag la ñuy jaay la ñuy jaayee ci ñu bëgg Baye Niass la ñuy jaay ñu koy jaayee ci ñu bëgg sëñ Touba moo tax Sénégal dama leen yërëm maay meilleur mais man la ñuy wax ne maay caga bi maa saay saay maa bon mais ñoom cent pour cent commercial dañuy toog indi benn oustaz Mouhamed Mbaye su dee seen TV. Mm-hmm. su dee. Euh, deux heures deux heures moom seen ustaas yi tojuñ moom. <laughs> kële moom fa lay nekk di yuuxu rek naan yaa rasulullah ka jooy rek nu mu tudd. ku sant Guèye. waaw Abdourahmane Guèye. Abdourahmane waaw kooku moom tafsir kooku moom ne bàyyi leen ko foofu moom bokkut ak nit ñi yàlla na ko yàlla sàmm. soo demee wal fajiri ñoom dañu xaw a xewe àddina sa fa nekk di jàngale ni mag ñi daan jàngee commerçant yu ñoro di rek ñëw koy tiim di ko téen naan ko nii <laughs> di ko xool rek. donc nga ñëw euh, wal. Eh, TFM foofu moom jaay taar yaa fi nekk Pape Hann defar oo bi ba mu baax toog takk ba dëgër ak booy Fall nekk fa rek di non oustaz Modou Fall sikk na. sa xarit. xarit la dama koo bëgg waaye dafa doy war ci lan donc ñii ñoo fay nekk su ko defee euh, seen TV moom seen plateau dafa dafa mel ni ñoom benn cin la ñu am bugg a toggandoor suppu kànja bugg a toggandoor maafe ak cere yëpp ci biir xaju ci. seen plateau bi lañ fa bëgg a def xajuk fa moo tax extrait Cheikh Ahmed bi day jàll sa duñ ko mën a commenter parce taluñ ko jamono bi extrait di jàll ñu ngi téye seen téléphone di waxtaan ak wax leneen waa seen TV. plateau bu waroon a dàq ci àddina waxuma Sénégal ñoo ko waroon am mais malheureusement liñ ci bëgg a xaj-xajal dafa mujj cokop moom la olof olof di wax cokop quoi xajam. su dee euh, TFM c'est à pur sang commercial donc oustaz Modou Fall oustaz oustaz as eh, kii eh, Pape Hann dañu wute profil oustaz Pape Hann mooy xaritu jéeg-jéeg jege maar ak ñi bëgg yonantu bi moom fa leen di jaar moom yonantu mooy marché am mooy léppam moom. Mhm. oustaz Assane tekkaaral geeg waa Tiwaawan ak nan tey ñoom moom la ñuy déglu. Mhm. Modou Fall moom la cagaju ndaw jeeg jeeg jeeg ñi nga xam ne defantekat yeeg pank yi mel ni Cheikh Ahmed. Mhm. moom mooy seen. moom la ñuy kii Pape Cheikh Diallo melomaan yi moom la ñuy cons donc ñi bëgg politique ñu indi leen journaliste yu saf laajte yi donc ñoom seen plateau dañ ko préparé en telle sorte que dañuy moom Sénégal léegi nag oustaz Modou Fall moom mooy ubbi pour vie yi mën a ñëw parce que nag loo ko mën a waxal am na xorom am na bayre nit ñi bëgg neen ko. dëgg la na ko yàlla lafal cet te yokk ko. Hmm? Mhm. moom su waxee. ak yéem yi nimpul nimpul sam yi <laughs> xam nga góor gu nice la <laughs> su waxee gars dañuy mën a déglu Pape Hann danaan teg su paree moom mu yéegal niveau bi. Mhm. fa tabarakallah ñu ngi sant uh, soppe yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga nangam xam nga nangam maire yi nekk fa di jooy ak ñi sa lu ne non Sénégal dañu mën a théâtre mhm. xam nga Europe dañuy liggéey jëriñu. Mhm. Sénégal lebal ma ma fay la la. donc nii la def. mel ni tey la ñuy waxtaanee Maodo. Mm-hmm. non non non Maodo musut leen a ñor. Mm-hmm. ki Maodo ñor dëgg da ngay jël sa temps comme su làmbu amee dem jag saaw xool doomi Maodo lu mu fa def nga ñëw teg ko. Mm-hmm. xool taalibe yi war a roy nan la ñuy jàngee ngir askan wi roy ñooñu. mais toog rek ku ne def sa jasneer toog. Seex Seydi Haaji Malick borom palan sorba borom nangam yu doyadu yooyu ñuy taggee Maodo man day dagg suma xool bi. waaw pour nga mën a dégg sax dama naan day dagg nday suma xol bi pour nga mën a comprendre li ma bëgg a wax <laughs> Maodo ak Palansoor mooy leen Palansoor 1000 francs 2000 la kum neex jënd ko pourquoi tagg Maodo ci borom Palansoor mm-hmm. sëñ Babacar bala ma dem borom bukaane bi borom ndangam ndangam ndar-ndar bi mais ndar-ndar mooy lan ndar mooy ku goog bëgg àdduna xam boppam hmm, mën a tiitaru loolooy góori ndar ak jigéen ndar ndar-ndar mm-hmm. lu tax ñu leen daan wooyee tàkkusaanu ndar ñëppay sànc ku ne wan sa morom ne maa la gën a set sëñ Babacar si ëpp na loolu donc den ñuy foyee suñu sentiment ci ñi ñu bëgg murid moom bu ñu xewle moom senegal day wàcc moom. ñooñ moom xam nga ñoom seen yoon nekku ci neel Bàmba rek baax na moom bu golo noon sëñ Touba sax <laughs> ñu jox ko àddee oto na ko golo toog ci yaa ñu tuddal sëñ Bàmba. ñoom da leen di comprendre parce que diggante ñun ak sëñ Touba problème bi lenn rek la ñi dul murid den koo teg fu mu paase murid teg ko fu mu yeggul. Mhm. neexut wax parce que am na ñu ne sëñ Touba yàlla la yeggul ci yàlla nag wax dëgg yàlla am na ñu naan sëñ Touba benn waay la woon passé na benn waay Ahmadou daal moom ak boromam ñoo xam lan la su ma nekkul ci. Mhm. donc lii ñuy def seen plateau yi du pour diine mais pour commercial la la preuve directeur programme bi xamut diine xamut dara ci Maodo télé la xam ak programme. Mhm. luy doxal télé ba ak programme ba la xam mais pas nuñ war a waxtaanee sax Ahmadou Bamba seen question yi sax dafa te même question la ñuy répété waxtaan kenn créé émotion jooy su ko defee ñu xëy dagg ko ne kii fait pleurer à diw mais suñ doon waxtaanee sëriñ ci dëgg-dëgg dañu war a saw suñ bopp mais waruñoo jooy. Mhm. parce que suñ xoolee mbaax giñ nekk ak mbon giñ nekk dañoo war a tiit ba day suñ bopp wala saw suñ bopp. Mhm. foofu la sëriñ ci waroon a toll ci ñun. Mhm. xam nga ne man mënatumaa déglu Baye Niass ndax baatam bi nu mu neexee la ragloo. Mhm. waaw munuma koo déglu man duma ma déglu kasetu Cheikh Omar Touré. Mhm. imaam Cheikh munuma koo déglu. Mhm. parce que déglu leen dafa am lu mu war a def ci yow. mais da ngay gis nit ñi dem sa naan sëñ Touba moo fi nekk vingt et un mille vies jël yeneen télé yi am trois cent teg loolu du compétition pour sëñ Touba. sëñ Touba nekkutoon ci compétition Seydina Limaamu nekkutoon ci compétition Baye Niass nekkutoon ci compétition Cheikh Seydi Hadji nekkutoon ci compétition ci mission la ñu nekkoon. ku ko comprendre nag def leen mbërum làmb ñuy compétir wala benn Usain Bolt bu dàq daw yow yaay doomaraam yow yaay imbécile yow yaay kacapa yaay kooba yaay baraaju ñoom ñoo sell donc télé yi. du ñuy waxtaanee diine weeru koor dañuy defaraat seen commercial parce que mënatuñoo animer musique làmb mënatuta am li waa ji naan coon tëggul waali woyul sii di xaw ma lanul kenn ñëpp a ngi toog te dañu war a liggéey un mois léegi lu ñuy liggéey. Mm-hmm. moo tax ñuy indi bër buy gën a dox indi mayonnaise indi nangam ku ne daw foog ñu créer nag lu nit ñi mën a seetaan ngir ñu jaay produit yi. Mm-hmm. mais wallaahi Maodo ñoru leen. trois cent cinquante cinq jours. su màggal jotee rek la ñuy waxtaanee sëñ Bamba nga ne sëñ Touba la ñor si Sadel Mali moom gàmmo leen koy boole yonent bi waxtaanee koog njabootam taxañ dem jàll. Baye Niass gàmmawaat seet naa limaamu ñaari fan leen koy may mooy appel bi su paree da ngay foog ne laayeen nekkul ci dëkk bi mais ñii ñoru leen. Hmm. programme bi laayeen ni jublu leen bugg a jaayaale. foog ñu comprendre que télé yi nekkaluñ fi diine télé xamul diine xamul tariqa xamul sëriñ télé commercial bu baax la xam. mu mën a yokk effectivement am yokk caméra yokk magnétophone yokk ndàngam yokk poudre yokk cadreur yokk ay affaire nga mën koo seetaan télé loolu la xam. kon boo gëmee ne nag tele bii mooy fi nekkal dine ah yaa ngi neex sa bopp de. Mm-hmm. amul. Mm-hmm. donc ñoom ustaas yëpp ci gémm bi la bokk. d' accord ay complice leen nag. tey ci ustaas yooyu noonu ba tey ji laay des boo doon soppi seen jikko wala tey yan jikko nga jàpp ni ustaas yi ñu ngi koy développé ci société bi te neexul en fait. su ma doon soppi seen jikko bu ci njëkk dañuy nangoo doon taalibe ñeme xiif ñeme ref la ñeme ñàkk bàyyi bës ak siw lii ustaas boo ko ci bàyyi doon nitu yàlla xanaa xam nga ustaas bës daf leen jaral ba dañuy def crème éparatoire xaw ma pour seen kanam <laughs> billaahi wallaahi tallaay dañuy jënd diw di diw régulièrement képp ku mën a def bayre ci dëkk bi xam neen sa kër dañuy sangu koo ci gis mu ngi mel ni mbërëm làmp te ñoo dàq ñaan nag soo duggoon seen statut kuñ dugal na suma waaj rek joxe kati xaalis la jamais ñu dugal dara ju xiif pour borom alali gis ko dem dimbale leen fa mukk ñu baax ñi ñu riis ñi rek ajaratu alaaji rek ministre diw honorable kese ustaas boo gis fàttalekuwul taalibeem gisoo ko mu tilim kooku du ustaas pas da nga war a tilim mais da nga war a nekk ci itte yi ba dootal sangu da daan dal Maodo da daan dal sëñ Abdou Aziz sëñ Muntaxa mii daf koy dal. Mhm. te am na taalibe am nay soxna yu baax am na njaboot am na lépp mais yenn saay mu nekk ci itte ba njaboot gi duñ ko tala wax sëñ bi sangu jot na wala solal lii. Mhm. waaye yow boo xam ne fu ñu la fekk yaa ngi propre mel ni benn star parce que loolu ngay dund star nga ci turu diine. Mhm. moo tax clim laa leen tuddee dañuy seddal nit ñi mais duñ sedd. nen bàyyi woyaan ci turi diine. neen bàyyi waxantu wax neen bàyyi tappale ci sentiment nit ñi ci sëriñ si te wax nit ñi lan mooy sëriñ si neen génn ci yi ñu nekk te ne ci yi ñu war ne man daal ustaas boo xam ne man nawloo naa sa xam-xam nawloo sa jëf nawloo sa comportement ci biir askan wi fii mhm. bariwul de matuñ juróom mhm. ñu ci des yëpp fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina rek na seen jàmm yàgg mhm. xam na ne ci dëgg te euh, Ablaye toog defar sa programme mu 30 minutes war koo waxtaan su ma ko doon def réew mi wàcc. dëgg la bala nga xam ne matuñ ustaas ñu ubbi antenne bi ñu xam di laaj masala masa waxuma masala internet xanaa xam seen question yi dañ koy préparé pour mu def buzz kii mu ne. dafay raay jabara mu ne nangam nga tontu ñu dagg ko pour bës dañuy préparer question yi mais tey xam-xam dëgg suma yaay dafa suma papa dafa gaañu bàyyi suma yaay nangam miraas bi nu muy demee oustaz boo ko fi laaj mu gag. Mm-hmm. wala du la wax lu leer. mais dañuy préparer waxtaan man 30 minutes nga jox ma ko pour ma waxtaanee sëñ Bamba damay lekk nit ñi bu ma paree nit ñi xam. parce que looy waaj la looy laajte la programme ko tëgg ko ba mu baax loolu du xam tiim téere di firi di wax du xam dégg arab rek. xam-xam leneen la ñii jàng neen téere yi mos neen tuuti mais yeewuñu sax ci téere mënuñoo jubbanti sa arab bu dëng waxuma laa ne dajeeg jëmmi xam-xam ba am xam-xam ba ñemee osé sol mbu bi oustaz toog ci société ne oustaz nga lu rëy la li tax ma daw ne du ma sëriñ li tax ma daw ne du ma oustaz lu tax ma daw ne du ma muqaddam bokk ma ci benn kër diine jikko jee ko matewul loolooy jox leen cër mais su ma neexoon sol suma dara rek dem liggéey ci benn télé ne oustaz la mën naa firi mën naa wax lu neex am naa xel am naa làmmiñ xam naa sëriñ yi ndax bëgg naa leen fekkee naa lu bari gis naa lu bëri te su ma waxee nit ñi déglu ma ndax wax nit ñi déglu la yàllaa koy maye te yàlla may na ma ko donc yii du problème mais oustaz danga war a am comportement oustaz nit ñi di jàngee ci yow te waxoo oustaz sa xaal dafa war a jàngale mais lu ñu leen di wax oustaz yaa ngi nice yaa ngi boo jantal oustaz mais ba kañ quoi ba kañ. am na solo am na solo lool euh, ma koy jaajëfal moom laa invité fii tey mu di en Ahmed Cissé euh, xam naa fi may jeexale ñu gis benn actualité boo xamante ni fan yi mu ngi wili paan ci réseaux sociaux yi mu di kii di Dof Ndeye nga xamante ni fan yi vraiment réseaux sociaux yi foo ubbi ak yenn bêtises yi mu ci def en tant que sénégalais en tant que citoyen aussi tamit naka nga jàngatee mbir moom man gisuma ne bêtise lay def. parce que gis léegi doyatul preuve nit génn rek na dof ndeyee ko jam lan moo xew te dafa am nit kuy nekk ci benn naqar faw société bi comprendre ko man tudduma dof ndey yow tuddoo dof ndey moom dof ndey la tudd am na naqar bu mu am buñ xamul ñun mais mu góor góorlu ba jël yaayam jooju teral ko sagal ko suturaal ko mm-hmm. mu ngi dëkk ci société buy bedd di xas nit mm-hmm. il faut pas ñu gis ne dafa vulgaire mais ñu xam lan moo tax mu vulgaire. lan moo tax mu mel ni ñu récupérer ko mais pas xalab ko. kii du ku ñu war a xalab. ni booy Ousmane Sonko yi di def marche Cheikh Ahmed ñu mën koo digérer fekkul kële am na xar man toj neen suma oto. saaga neen suma ndey. Ousmane Tunkara sosal na suma baay. lu ne daj naa ko. lu nekk rek loo xalaat daj naa ko. mais mën naa ko digérer parce que damaa kontaan damaa heureux. Mm-hmm. mën naa koo digérer parce que aw ma ndey dof. mën naa koo digérer parce que aw ma baay ju dof. mën naa ko digérer parce que yàlla may na ma métier bu may liggéey di am mu lew. mën naa koo digérer parce que am naa xam-xam boo xam ne bu méttee ba métti mën naa jàppande ko feneen mais ki amut loolu kan mooy bàyyi dayu ndof dof ndey xaw ma ko kan mooy yaayam mooy benn dof donc loolu neen ko jéem comprendre. mais provocation bi ñuy def nit ñi buñ ko defee Dof ndey mën naa ñàkk a jàll ak lu mën a xew gis naa benn photo ñu def Dof Ndeye ak Amadou Sall ne Dof Ndeye Dof Baye mais loolu ndax dina neex Amadou Sall. donc foog ñu xam ne Sénégal dafa bëri ay provocation dafa bëri ñoo xam ne tey euh, humilier la defuñ ko muy dara maanaam fàttali la ne yow sa yaay dof la du ma wax ak yow du dara ci ñoom. nit saaga na ma ndey ma saaga ko ndey yaayam woo ma na ma dimbale ma supprimer kii ma ne ko suma yaay ji nekk àllaaxira bi ma naan sa lëfal ndey yow lëfam sa lëf li moo ko gën a jege mënoon na laaw yow sa lëf rek c'est simple quoi. man dama naan bala nga naan ni damay ubbi sa nangamtaanu tànnu ndey sa yaay bi la jege te yow ci nangam bi nga jóge ubbi ko rek. saaga rafetul. li may wax du ñaawa ah, parce que su dee ñaaw rek tàggee warta ñaaw. Hmm. donc dof ndey ku ñu war a comprendre la. Hmm. ku war a récupérer la. waxtaan ak moom ñu bàyyi provocation yi parce que melutoon nii lan moo tax mu mel nii mu ngi mel ni Ousmane Sonko man gëw ma ne nitu fitna la mais den ko yàgg provoqué ba gatsa gatsa rek mooy solution ci moom mais Sonko reewul Sonko réyul Sonko réerul Sonko ñàkkut yar Sonko xam na boppam mat na kilifa ndax mu ngeeg jabaram ak doomam. mais ñim nekkal ñu koy ñoppati di provoqué muy wax ba dem na ba mel ni Sonko dafa bëri wax. dem na mel ni dafa bëri fitna nit seytaane la wallaay doonu ko. Mm-hmm. bala nga xam ne technocrate la mu nekkoon ak ñu régler ñoo xam ne duñ tooñ duñ gëstu duñ saaga dañuy régler liggéey liggéeyal askan wi rek toog wala nga xam ne sonk nit ku baax la. Mhm. mais nag malheureusement den koy tooñ mu fayu ñu ne ko nitu fitna nga. den koy saaga mu fayu ñu ne ko nitu fitna nga den koy def gatsa gatsa moom mu wax gatsa gatsa ñu yóbbu gatsa gatsaam mais gatsa gatsa du wax rek ak jëf la. Mhm. Mame Mbaye Niang li mu def sonk gatsa gatsa la di. jaawale rapport ci benn lettre nga yóbbu ko ba am ci 200 millions loolooy gàtt sa gàtt sa di. Sonko kay dafa mel ni Cheikh Ahmed rek. <laughs> nit ñi bëgg koy mu ne koy ñu ne ko yaay caga loolu la rek. <laughs> donc c'est ça quoi. mais gàtt sa sa moom. Sonko ñi muy dundal ñooy wax ñooy def gàtt sa moom mu wax gàtt sa mm-hmm. te jëf a gën a fort wax. Mm-hmm. kon ñoom seen gàtt sa gàtt moo gën a piir moo gën a dangereux moo gën a bon mm-hmm. bu Ousmane Sonko. am na solo tey nga xëy dégg euh, ñu ni Jamra plainte na kii di Dof Ndeye dina la bett. dina ma bett kay dina ma bett jamra lu am bës rek ak ku am bës <laughs> wallaahi waaye lu amul bës amoo bës lijjantiwuñ la. Mhm. lépp lu mun a may crédibilité jamra ci la ñuy dox mais pas luy dëgëral askan wi ak lislaam mhm. man gooma loolu. Mhm. mais tey su fekkoon ne lii Cheikh Ahmed la wala wala wala keneen xanaa xam boo bokkee Pastef sax am nga kaaraange ci boo bokkee Pastef wala Euh, sàmm jikko yi da ngay am privilège ci jamra bu kenn amul jamra moom ku amul ndey rek maanaam ku amul ndey moom rek leel jamra nga fi de mais bu fekkee am nga ginnaaw ci réew mi nga bokk wala ci benn kër diine non jamra du la laal. Hmm. Sénégal tamit ci ron table bi leen koy réglé balaa bër set. d'accord tey Dof Ndeye euh, ni muy def nii nga yaakaar lan moo ci taxawaayu gouvernement donte Dof na Ndeye et tout ak situation yi mais saaga yi ak semmi yi ñuy gis aussi lan moo ci taxawaayu gouvernement. Euh, su ma doon gouvernement den koy woo émotionnellement. koy mm-hmm. waxtaan ak moom. Mm-hmm. bi ma bi ma duggee ci kaso bi dafa am ko amoon dépression di jooy nanguut a lekk na day ñibbi Major Diallo mi nekk ci hôpital bi xam nga lu mu def. ñëw na ko danga nga bëgg a ñibbi mu ne waaw mu woote allo waaw indil leen ma benn oto bu mag bi kii dafa bëgg a ñibbi waa ji ci saa si mu reetaan ba lekk ne mu ngi dem néeg ba jël bagage am ñibbi dof ndey ku ñu war a récupérer la laaj ko lan moo xew. bu fekkee dafa am ñiy woote numéro am di saaga ñu convoqué leen. su fekkee provocation ci euh, paasam la ñu jëli leen comprend nga. xañ ko mu génn ci caméra ki koy caméra tamit keneen la gëw ma ànd ak sa xarit muy def lu ñaaw nga di ko caméra man gëw ma loolu. mais caméra ko ci sa xol. akolaat ko wan ko mbëggeel wan ko na ko lii du dara loolooy xarit mais bi mu nekkee ci taxi bi di saaga ki ci ginnaaw moo ko doon caméra. mais pour lan. xarit dafay mën a dimbale xaritam mais kaawam du kaso moo koy réglé du dóor moo koy réglé du tëj moo koy réglé nit ñëpp war a defaru waaye defaru du ci kaso rek la ko nit mën a defee yenn saay nga yedd doomi aadama mu gën kaso fuuf yenn saay nit am lu ko naqari nga tëj ko kaso mu jógee fa nekk rancunier kaso defarul ñëpp mm-hmm. xatti xatti defarul ñëpp gat sa gat sa defarul lépp donc pour man Euh, nit yi dine sax mën nañoo récupérer Dof Ndeye parce que loolooy seen njëriñ quand même. Mm-hmm. tey sëñ Abdou Karim su óolu woon Dof Ndeye def benn vidéo yow Dof Ndeye man sa bàyyi sa Abdou Karim maa la invité suma kër kaay Dof Ndeye day dem. Mm-hmm. mais lu dàq loolu. mu ñëw mu teg ko ci borom na ko tëddal suma pooj yi raay ko na ko yow ni ma la bëggee ruusoo may saaga mais nit yi diine yii la war a def lii mooy njëriñu lislaam mm-hmm. man de bis bu ma summeekoo ne diine laay woote ñu gis lan mooy lislaam parce que lii du diine ay politique la ak affaire rek mais dëkk bu ñu naan quatre-vingt-quatorze pour cent musulman ne kilifa diine yor réew mi ku mel ni Dof ndey nekk ci situation nekk li ñëpp ne patt toog di ko seetaan ana njëriñu diine. ñoo ko war a récupérer jël ko ndogoog yéen su la neexee sax nga teg ko salal mu fanaan ak yow su génnee xam nga lu muy yëg sëñ Muntaxa laa fanaanal. ziyaare boobu nit ñi di ko ziyaare di ko ñee daf koy wanaat mbëggeel daf koy joxaat confiance delloowaat ko ci boppam. waa ji dafa ñëw ne yonantu da nga ma tooñ damay fayu lan la mu ne ko keroog xare badar bi ngay dóor sa fas bi danga maa laal saxaaba yi jug di ko offrir téeméeri gëlëm cent milliards mu ne leen mm, mm. yonantu na ko maa ngi lay leen tudd ci Yàlla mu ne ko déedéet dóor rek dóor fayu yonantu na ko dóoral mu ne ko mm, dama simmeeku woon yaram ne da ngay simmeeku saxaaba yi di jooy ñii di xëb mm-hmm. bi mu simmeekoo waa ji kott yonantu foon ko na ko yow rek laa bëgg lii rek laa ci bu bi mu paree saxaaba yi dañ ko def buur di ko foon ngir moo foon yonantu bi. ko kooku noonu la doonee sang. mais eh, kilifa diine toog noppi rek kii dend ak yow ci nguur lay ne lu mu foor foor ci suuf programme la rek mais man nekkuma ci yooyu moo tax man daal maa ngi yàlla yonantu Seexu Tijaan rek. Mhm. am na solo am na solo ah, am naa mbégte jàkkaarloog yow. Euh, vraiment sunu xarit nga nag sunu partenaire nga man moom sama xarit nga vraiment. Euh, ngay kenn ci man parce que damay wax ni cër cërale te gis naa cër bi nga xam ni jox nga ko équipe bi mais man it jox nga ma ko parce que wax dëgg yàlla am na loo xam ne jot nañ ko dund même bu nekkee benn fan du ma ko fàtte mukk ci sama àdduna donc maam contentement ak mbégte ci jàkkaarloo ak yow fii ak ci invité la aussi tamit tey sa mot de la fin ci émission bi. xam nga yàlla su la boolee ak nit ci circonstance yi ko neex. da ngay xam ne kii yàlla moo ko cërale ci yow dama toog ak benn waaye ma ne ko bi may gént ne bi may gént Seydina mu ndekke du hasard man Seydina Limaam moom a gunge ndax bi may dem ci guddi googu di jëli suma plainte yow laa àndal ñu dem jëli ko nekk ci ngay woote fu ne pour bu ma dem kaso ma ne la demal nga ñibbi dinaa dem kaso te su ma génnee dafay gën a baax te lépp lu ma woon su ma génnee dana yomb fajar bi ma yeewoo nga indiwaat sa moto jëlaat ma kerek ba may dem ñoo ànd ma ne la Mame Matar Gueye nga nële di génn nga toog ak man toog ak man lekkuloo suba ba ngoon te ci dëkk bi ku ma fi bokkalu rek terrain bi moo la indi wala guddi nga wàcc. ba bi ma xamee ne damay dem ci kaso gi suma jaaro bii laa tekki jox la ko ne la yóbbul ma suma kër. donc te ngay taalibe Seydina Limaamu Laay ba ma demee moom laa gént kon man Seydina Limaam moo ma gunge sëriñ yëpp a ngi fi nag wallu yëpp a fi ñëpp a baax mais man Seydina Limaam moo ma gunge ci kaso te ba ma duggee moom rek laa gént moo ma fa terali tamit ba ma génnee it ci Seydina Isa laa sangu ji dem ci moom moo tax maa ngi waaj a ziyaara yonantu mais dama ko ne yow laay njëkkee fi nga ñuulee fii dem fa nga xesee départ fi nga ñuulee kon maa ngi seede loolu ci yow di wane ne man ku ma jàpp te muy dëgg duma ma faale woo naa la woowu ma la neex na la naqar na ndax jàpp te yàlla tax moo yombul ngay nit ku am personnalité ngay nit ku gore ngay nit ku xam sa bopp ndax musta am nga woo ma na ma may ma te dangay ngay ànd ak ay nit ma may ñëpp am des yow te dooma ñaan waaye saa yoo ñëwee dangay jël liggéey dem xam nga ne moos lii may wax bu amutoon doo ko dégg man duma tagg nit ndax damay ragal a tagg tey xas suba mais yow moom sañ naa wax ne bëgg naa la te yàlla tax jàpp naa la yi tamit nag te yàlla may na la cër ci man euh, tey dama toog ba mu yàgg ma jot benn appel kooku wax ma ni ma bokkee ki moom site bi la mais wax ma nim jàppee site bi ak nim ci soon ne ma ne ko ah boobu mu ne waa ma yëgal téléphone allo waaw Idi maanoon kenn du ñëw suma kër mais man nitu intérêt suma mbokk nga kaay ci kër gi waaw kenn du ñëw suma kër intérêt bi mais yow di nga fi ñëw xaw ma ne nii leen bokkee mu ne ma xamoon naa ko bugguma la ko woon mais loolooy modeste. am na ñoo xam ne bu ñu la xamee dañoo ba ci ni def la au su ma waaj waaw kañ laa ñëw nag wan nit ñi xam neen la mais kii dem ba xam ne da ngeen bokk deret mu noppi mais gis nga bi ko yàlla yombalee dafa yomb seen man bi ñëw fi fekk ki may toggal suma mbindaan bi nga xam ne dañ koo dàqoon ma fat ko ñoo yoroon door Richard Toll donc muy loo xam ne yàlla yàgg nañoo boole eh, yàlla na yàlla defal leen jàmm lépp lu may def ci réew mi di ko wax bu ngeen ci jiitu ti ca ñi ci jiitu ngeen bokk incha allah képp koo xam ne am nga cofeel ci ñun jërëjëf bu fekkee ne safaan wa nga am da ngay muñ te ñaanal ñu yàlla incha allah jërë ngeen jëf.